waaw ba tey ñu ngi ak le grand champion Farba Diagne mu war a bëree le dimanche 13 janvier incha allah ak euh, Boy Yeumbeul champion ñu ngi lay jaar. waaw ñoo lay fay. waaw ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wu. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla rek di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di nuyu mbooloo bi ñu fi teew yëpp di leen nuyu yéen tamit ndax tamit di rafetlu invitation yi ngeen jël nii tamit yéen a ngi jàppale lamb quoi bu loolu weesoo tamit di ñu Mame Less entraîneur principal Senghor Moussa Pël di nuyu tamit sama mbokku mbër waaw ñoom Adik ñoom Bébé Far ñoom Pima ay ñoom Siteu ñoom Pape Souker yaa ma gën a xam waaw gars yi daal ñoom Pape encore maa du ñuy organe tamit bu ma àndee bu faru jar du ñuy waa intestis yëpp tamit waaw dina xam ne ñooy jëm si bis bu rëy bis bu am solo muy le 13 janvier waaw avant ñu ñëwaat ñu ñëw si sa combat rek ñu ñëwaat tuuti ci sa ci sa carrière début carrière surtout euh, mun nañ xam ñaata combat nga defagum ak euh, sa carrière nan la demee waaw tey ji sant yàlla daal instant to bu ma duggé ci lamb sax daanaka yagul 2015 wa yalla suñu borom suturaal na ma waaw ma ngi combat en plus 5 victoires 3 défaites wa combat bi nak nañ jëm ci combat bu mag combat bu ñu soxla bëgg nag gars yi ma ci tamit ma ci liggé bu baax andi sama écrit waaw ñom ñom ñom ñom lepp luñu war ci moom combat bi def nañ ko ci kon nag daanaka dama jël lepp te ko ci loxo suñu borom gis na taxway bi jappalé bi mbeuri contact bi métti na trop entraînement yi dal métti na di ñaan yalla suñu borom bu yor ndam yalla dafa ñu ndam ci carton suñu borom waaw comme ni nga waxee 5 victoire 3 défaite mu doon bilan bu acceptable ngay bëri également ak booy yëmbal est-ce adversaire bi xam nga ko bu baax. waaw jàng nañ ko rek ànd si sama entraîneur yi principalement am les comme ni ko waxee Moussa si liggéey am solo nag liggéey am solo incha allah rabi le la la gars yi di comprendre si kàttanu yàlla le treize daal incha allah rabi bu ñu fa déggoo gars di xam ne ñun liggéey nañ daal waaw. boo yëmbal moom yaa ma gën a xam man aw ma man bépp mbër man daal daanaka su ma su ma su ma àndee su ma àndee sama entraîneur ñoo préparé combat instant yii daanaka amu amu benn mbër bu may bàyyi xel ci làmb non non ñoom déglu ma topp seen ginnaaw combat bi ñu koy jëlee dama ñëw ma jël combat bi ñu ne ma boo ci liggéeyee liggéey bu jaar yoon incha allah rabi yàlla dinañ sutural te liggéey nañ ko bu baax kon tag yi jàpp na ci trop waaw instant yii moom di ñaan rek yàlla defal ñu jàmm bu baax waaw instant yi mën naa ne mënatuñu wax ci combat bi di guddal parce que dernier moo fi nekk bis bi ñëw xam rek yow incha allah rabi ñoo koy préparé dimanche moom wax naa moom di wax fan si club bi yaa ma gën a xam ne mobilisé bu baax a baax en plus tamit di ñaan tamit yaa ma gën a xam moo loolu tamit ñoo bokk journée di ko ñaanal sama grand la yàlla suñu borom may ko ndam waaw ñëpp ñoo bokk parcelle comprendre du nuyu tamit waaw suñu tëdd fii Moussa dëgg la waroon na ñëw na xëy na dafa xawoon jàpp ay ñoom franc yéen gars yëpp daal bàyyi ma kenn parcelle mbooloo yëpp daal maa leen ni tamit sama fan si yëpp di la wax ne bis fa fan si club farbu bu Jaar maa leen di bégee bu baax di leen jaar waa intesi o ma sen fay gis naa taxawaay bi gis naa di wax nañ gëna a dolli ñaan yi incha allah dina def ndam dal ci katunu borom bi waaw ci kaw loolu ngay bëree ci bis bo xamanteni Modou Lo da ci wara a wax nga wax li ci say biir cadre mu nekk le mentor de de 200% par cent est ce que loolu nekkul ben pression supplémentaire ci sa kaw non loolu mënu dool pression si man dama lamb deug la bi nekk suñu premier journée te yag nañu bëree deug la bis bu reena bis bu reena bis bi nañ fonku ndax tamit bëree si bis bi sant yalla la waaw ah, bis yi mag yi c'est la première fois ñu bëri si waaye ñoo si sant bu baax baax waaw ah, lamb ji moom mënu ma am ama benn pression bu ma si yóbbaale ndax daanaka lu ñu war liggéey liggéey nañ ko waaw bis bi daal comme dama ko jàppee ne dëgg la bis la dama ko fonk waaye dama ko jàpp ne comme yeneen bis yi ren la ñoo yam dëgg la bëree la bëree lañ wax waaw waaw en tant que mbër lan ngay sànni ci combat Balla Gaye Lo parce que mënuñu si ñàkk a wax te doom parcelle waaw Lo ko xool la combat bi nekk combat bu neex do combat bu gaay bu soxla won tey yalla dem na tey ji yàlla lamb dem na ba taxaw kon nak danaka lamb ji accena na lu si des bëreetul daanaka ay 12 3 jours ñaanal mbeuri ñom ñaan ñep yalla may wër ak wër la ak ak mbeuri mbëri yu fawre ba yëpp comprendre di ñaanal nak Modou ya ma gëna xam Modou yalla suñu borom taxaw may ko ci ndam ci du guy dal waaw loolu laay loolu laay wax ci combat boobu dal champion ñu bàyyi nga tagato waaw lu may mujjee wax moy lan di nuyu ñep ñep ñep ñep ñep surtout sama waa dëkk waa Jilaas di sama taxawaay bi sama waa dëkku yaay leen ziar bu du nuyu ñu may àndal guddeeg bëccëg suba ngoon rawatina sama doom nday ñoom yal doole ñoom bebe far ko ni koy waxee ñoom organe bu far bu jaar ñoom nes ñoom muntaga ñoom rabio ñoom balzo verete gis naa taxawaay bi du nuyu tamit mariama bu organe bu baax maa ngi koy jaar gis naa jàppale bi ay ñoom kat yi bàyyi ma kenn su ma limee rek dinaa juum waaw ñoom monsieur le ministre Amadou Ba tamit ñoo koy ci combat bi mu gën ci jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax combat bi daal nekk na combat boo xam ne maa ngi wut combat bi daal dama jël teg ko si loxo waa groupe whatsapp pant kële Farou Diar ak waa staff Farou Diar yëpp maa leen di woo ci combat bi. di nuyu tamit Moussa Paul sama entraîneur moom tamit maa ngi koy jaar tamit combat bi tamit gis yëpp moom ñoo Schenker sama sama tamit dafa sonn si man tamit di ñaanal yàlla guddal fanam bu dem ba fekkee suñu njëriñ ndax gis naa taxawaay bi tamit bu ñu taxawee dafa mbëri yi sa papa bi moom amul lenn lu koy wax lu dul la di waaw champion ñu lay sant di la gërëm. waaw mu nekkoon le grand champion Farba Diar wala Bré le dimanche 13 janvier incha allah donc wax na daal di ñëwaat ci carrière am mais également ñu projeté wu dem ci combat bi nga xam te moom la waree bëree dimanche ak boo yëmbal loolu daal lañ jotoo tënk ak moom ci kanam tuuti den jël le course Mame Lèche